képp koo xamante ni yaa ngi ci show bi dinañ doxantu ba sagaale wala sax ñu dalal di suñu ay plateau toog waxtaan ak yow ci show bi te nag dañ dalal artiste boo xamante ne nii mën naa ni seen artiste la waaye mu ngi marqué empreinte bu baax a baax ci art bi macha allah nee naa la doomu Tiwaawoon ndax waaye daa am cër ci banlieue bi ndax waa banlieue dañ koy safoo di ko namoo lu ci mel ni Parcelles ba Pikine ba Guédiawaye mu fi marqué empreinte bu baax a baax mu ngi liggéey mu ngi naaj gëm boppam am talent bu baax a baax. mën naa ne macha allah lay nuyu. sister Eva mang lay fay sama jigen sama xarit wa sama sister bu mignon macha allah <laughs> waaw comme ni nga ko waxee rek ma ngi nuyu sama fans yëpp di nuyu sama waa dëkk Tivaouane di nuyu wa Pikine parcel Guédiawaye Cité Aliou Sow ñëpp maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen ziar. macha allah ñu nuyu bu baax ba sék ba sék nee nañ doomu Tivaouane nga way da nga am ciir ci banlieue bi. macha allah ku ne xam na loolu. Mhm. Euh, Baye Seck euh, bu ñu bëggoon xam jaar jaaru Baye Seck ak kan mooy Baye Seck ak Baye Seck euh, lan moo ko dugal ci aar bi tey ba jaaram yaakaar naa ni fii ma ñëw nii muy Pikine ñi ma fi ràññee ñëpp ñi ma ràññee si marchand def naa ko Pikine Géejawaay Yëmbal Caaroy fu ne dem naa fa dugg naa fa def fa marchand ambulant boole kook aar nag tey ba yàlla dogal lii lépp nag. waaw Baye Seck si li mu jaar daal bari na waaw. Baye Seck ci li mu jaar bari na kon ñu ngi ko déggandoo mu nekk ndaw lu gëm boppam gëm liggéeyam ba yegg si fii tey Baye Seck kan mooy Baye Seck. waaw Baye Seck de ab euh, xale la bu ndaw bu jóge ci waawoon yàlla def mu ñëw Dakar waaw jàng naa fi métier def naa fi marchand ambulant waaw ba génn nag si aar bi waaw di comme ni nga ko waxee sànq <laughs> di doxal aar bi muy dem mm-hmm. nit ñi di ma si bëgg loolu nag. ma booloon ko marchand ambulant bi du dugg ci kër yi xale yi di topp ñépp bëgg ma si ñu ma invité tànni biir ngénte mariage lépp lu ma invité rek ma dem ba tey yàlla dogal lii lépp. Mhm. Baye dama bokk ci famille boo xamante ni day famille ngéwal gi tee Momori taw Momori rawatina na nag euh, sama maam di Alaaji Mansour Mbaye bi nga xamante ni moo jur sama yaay mhm. kooku jàngkat la woon. bon famille bi daal famille ngéwal la ñii ay jàngkat lan ñi ay woykat lan. Mhm. kon famille ngéwal la kon li ma koy waxee rek doomu géwal dafa war a mën a way ko mhm. ma gis mhm. allah di nekk si mois février bi ah, ku dégg février nag ah sa xel nekk si dem si le 14 février eh sama eh, anniversaire 14 sa bés la sa bés la daa woote woon nga ci gisoon nga li nga def macha allah ñëpp apprécié ko bu baax a baax. Mm-hmm. nga génn euh, nga xam ne ren jii euh, gis nga li tënk ba xam te ni lu am naka la la def. waaw comme li nga ko waxee le 14 février bi daaw def nañ ko ravin mu fees dell fu nekk nit jóge fa ci àddina teew may gërëm bu baax sama yaay Mati ki nga xamante ni taalibe Serigne Babacar si boobu dëgg neexul jóge woon ba Paris ñëw ndir bis bi ah. comme li li ma la ko waxe rek ren mom yalla indi na ndogal mi corona bi mo nu téye tank nu ba li ñu bëggoon a def mënatuñu ko def. xana metti metti na torop parce que xam nga ñun lii mooy sunu teraanga baat donc buñ toogee tëggunu rek euh, day metti sunu côté lool parce que ay responsable lan danoo yor cœur danoo yor famille xama dafa am ño xamanteni ni danoo te li ñu yaakaare si joué bi ñu joué si lañ koy am maanaam ngénte yeeg euh, mariage yeeg soirée yi te lépp taxaw na metti na daal suñu lool rawatina ñi nga xamante ni ñooy dunu location bi am na artistes yoo xamante ni euh, chaque guddi lañuy dugg seen kër li ko waral mooy location bi nga xamante ni suñuy teraanga yi nga xamante ni doxul dafay metti loolu waaw macha allah kon ñoo ko déggandoo dégg na li mu ci wax gis nga xale bi ma dalal tey dafa mën a way lool am cër ci way nag macha allah la bu lu yuuxoo rek da ngay daal di bëgg bàyyi seeg bu mel naa nga ñëw ma ci mbëggeel tuuti parce que da nga génnee benn si nga tuddee ko aareelu ba laa fay bëggee. sama xol lay seetee mbëggeel la may sonal mbëggeel la may joyloo. mbëggeel la may dof loo mbëggeel yaa bëri doole ya waaw wuy metti naa mbëggeel looy mbëggeel mbëggeel dafa metti yaay nit ku koy dund rekk ko mën a seede ay waay mbëggeel moom da romb na ma di dem ma jug di ko mu taaraxal maa si samay digg nawle ay waay ki la bëgg ku nekk moom du la xal man de fonk naa la lool siste Eva ay Baye Seck mi ngi lay woyal mbëggeel. macha allah Baye Seck kon ñoo ko déggandoo nee naa la Baye Seck sama ànd ak yow démb la tey soog a ñëw macha allah c'est pas la première fois euh, dalal bi am. kontaan naa ci bu baax a baax yaa wax yooyu yëpp ci mbëggeel mais bëggoon naa ñu xuus ci bagel parce que dañu nekk mo bagel nak faw ñu waxtaan ci ci ci ci mbëggeel wa waaw mbëggeel mbëggeel daal la febar febar bu beuri doore nak wa bu la dalé dal non mbëggeel febar bu beuri doole la koku bu la duggé da nga nan dedet du wa daf lay ëpp doole nak man na la def loolu lu ne ah wa di nga def lo xamanteni ni après ngay comprendre loolu lépp mbëggeel ma moo ko waral ndeysaan maa ngi fàttaliku nag euh, benn jour ma jóge wan ma dem ndeysaan seet sama benn gel bi ma ko seeti jee nag ñëw fekk mu toog ak faram xama ndeysaan nag di non bis boobu doy na waar si man parce que boobu dama bëgg xale bi waaw mm-hmm. ah, ba tax ma jóge Tiwaawan tag rek ma dem këram seeti ko ñëw fekk fa mu nekk ak keneen bima may retourné nek may deglu way yu sundur bobu nonu quoi beugel ay coono la bu ko weti ay coono la ay coono la ay coono la may deglu way yu sundur bobu nonu si la xam nak beugel amna doyna mhm. war doy su war mo histoire moo ci beugel bo xamanteni marke na la bobu dal marke na ma torop mm. waaw kok dama ko beggone ma jóge ci nak tak rek ma dem seti ma dem fek mu nek ak. keneen xama loolu nag daf ma jàpp daf ma choqué parce que xalaatu woon ma fi ma jaar ak moom dina ma mës a def loolu bi may ñëw nag si laay déglu woy Youssou Ndour boobu noonu mbëggeel ay coono la bu ko weddi donc loolu daal ba nii dama koy imaginer nee na ko nii daf koy imaginer <laughs> doy na waar bu ko defee ñu dellu waar rek ci procès Baye Seck gis nañ ne yaa ci aar bi yaa ngi ciy sa waar bu baax a baax macha allah gis nañu bëggee bi nga génne woon def ko clip bu nekk clip boo xamante ne ñëpp ko apprécier. Mm. clip bu ndaay sax. Mm. macha allah noonu liggéey bi naka la demee. waaw clip bi liggéey bi ni mu demee mooy eh, gars yi ñoo ci jàpp maa ngi gërëm bu baax staff Baye Seck ñoom Omar Diop borom Pikine. Ah, ñoom Lamine Gueye maa ngi leen di gërëm Siste Kenza ah di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni rek jàpp na sama clip bi ñoom Marème Ndiaye maa leen di gërëm bu baax xam franchement ñoom ñoo ma dooleel ñu tourné clip bi moo nice ñëpp bëgg ko fan si tamit macha allah fu nekk nit di ma fa woo du ma toog daanaka une semaine yi nga xamante ni wala deux jours yoo xamante ni def ma interview loolu lépp daal si lay firndeel ni la liggéey rek a wóor waaw. liggéey rek moo wóor macha allah noonu lay demee nga def kii boo xamante ni macha allah daal ni mu ko waxee euh, lan moo nekk projet Baye Seck instant mi. waaw projet bi projet bi nag euh, ñu ngi si ay projet yu doy waar. Mm. waaw ñu ngi waajal yeneen bagage yi nga xamante ni bientôt rek incha allah dinañ ko gis parce que euh, ñu ngi liggéey ak staff bi ñu ngi liggéey surtout sama ménagère muy maa ngi gërëm baax. Euh, Souleymane borom sita Ali Sow chéri Marème maa ngi koy gërëm bu baax franchement mi ngi may teg ci code waaw ñu ngi liggéey lu doy waar maa ngi koy gërëm bu baax a baax Souleymane chéri Marème di gërëm bu baax Moodu mi nga xamante ni moom la ma jël teg ma ci ay loxoom ah donc maa ngi leen di gërëm. waa xam nga nag euh, fi mu toll nii danoo nekk euh, si li nga xamante ni lépp looy liggéey rek donc da ngay jël sa temps bu génnee nit ñi bëgg ko xam nga mu nice yàkkamti mi ngi mel ngay togg rek boo yàkkamtee ba togg loo xamante ni neexul dan la ko fi bàyyil donc xam lii ni nga xamante ni muy mbëggeel bi areenu mbëggeel bi sama xol laay seeti génn na ñëpp bëgg ko kon dañuy jël suñu temps génn waat li nga xamante ni moom la fan si bëgg ni jox leen ko loolu la rek waaw ah, mais bientôt rek du yàgg. waaw projet yi nag euh, Sister Eva euh, corona bi moo nu baare mais ñi ngi ci ay contrat yoo xamante ni macha allah tamit ñi ngi ci yenn liggéey yi nga xamante ni bientôt rek nit ñi dinañ ko gis avec Baye Seck ak ay fan sam waaw corona bi daal moom tënk si lu bëri mais ñi ngi ay contrat yoo xamante ni macha allah du Sénégal am na yoo xamante ni pour génn la. parce que Baye Seck ñu koy bëggee te musuñu ko gis mu ëpp fuuf ñi nga xamante ni moom lay xëy di leen gis mhm. yaakaar naa ne daal looloo ñu tënk. macha allah loolu moo leen tënk mais xaar leen ko bientôt dina ñëwaat ci leneen ci euh, Baye bu ko defee rek ñu dugg ci li nga ni mooy activité parce que boo nee showbiz rek showbiz bi ku ne xam na li nga xamante ni moo xew ci showbiz bi instant yi nii dañ ko jël def ko guerre artistes yi dañ jël showbiz def ko guerre. ku mën sa morom yaa gën a xam. doo sax comprendre instant yi nii comme diggante Wally Seck Sidy Diop li nga xamante ni moo ci xew Sidy Diop Wally Seck génne na àndoom nga xool Sidy ni ko gis naa Tarba Mbaye fële fële da bàyyi ko ñeme euh, diggante loolu noonu lan nga ci la ban xalaat nga ci mën a wax ban jàngat nga ci am en tant que artiste te yemul tax ci parce que ba ci hip hop bi ah ba ci hip hop bi gis nga li nga xamante ni moo ci xew. mais du si showbiz bi kasse fepp la mais loolu lepp lo gissé ay kaf la parce que digg diggante Sidi Diop ak euh, Wali euh, man naa ni euh, interview may def yépp ma ngi si wax man ndaysan ñom ñaar dama leena bëgg dama leen di déglu man damay déglu Sidi Diop damay déglu Wali Seck tek na man dama ko bëgg sama doom baay la tamit diko ñaanal Yalla suñu borom fi mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg ta wax dëgg yàlla mu ngi si tànk yooyu Sidi Diop tamit di jantal booy xam donc lii daal xam dama ko gis nii affaire boo xamante ni la daal affaire boo affaire bu rafet la donc diggante bi macha allah waaw Sidi man dama koy déglu damay déglu. comme ni ma la ko waxee noonu rek euh, diggante Sidi ak Wally franchement yaakaar naa ni daal man Baye Seck dama leen déglu te ñu ma neex lan. booy xool sax sama interview yi des fois euh, si ñoom laay kii daal waa di leen di leen tooñ parce que macha allah daal di gërëm bu baax waa li Seck donte sax mosunoo toog mosunoo gisee may maa ngi gis yi muy def di jàppale yi nga xamante ni mooy loolu mi ngi def di dimbale di defi teraanga xamaa di ko ñaanal bu baax waaw franchement daal. li soo showbiz daal. <laughs> <laughs> Ah. mooy showbiz. noonu la demee. <laughs> Ah. Euh, lan nga ah Pikine TV. dégg man de Baye Seck maa ngi ci Pikine mhm. man fii laa tàmbalee Pikine TV. sa kanam. ana bamba seede ma ma waay Pikine sëriñ bamba la la tuppeey baayi sëriñ falloo baayi sëriñ saaliwo moodu yaa doyloo sëriñ saaliw mbàkke Pikine TV sa kanam ak sista Eva man bayi sekk maa ngi lay ñaanal sa kaw sa kanamoo avec Pikine TV moo ko bari doole. barki yonent bi noonu lay demee saa su ne parce que su ko defee le 14 février euh, lan lan nga ci nar parce que dafa nekk si jour anniversaire. Hmm. jour birthday. Hmm. Euh, lan nga ci nar. waaw li ma si nar nag euh, mooy comme que danoo fekk si bis bi nga xamante ni mooy corona bi. Euh, lëmbee àddina ba kenn mënatul defati dara ñuy tere lu bari moo tax daal dama ko bëgg a def lu simple kese waaw def ko sama kër xama def ko affaire u digganteeg fans yi xama ñu def ko affaire bu oyof rek. <laughs> nee nañ def ko affaire bu oyof rek noonu lay demee ndax mbas mi. ba tax euh. coronavirus bi demee ba seeg lan ngay tawatoo ak mbokki bi waaw xanaa di kontaan bu baax a baax Pikine TV maa ngi leen ñaanal yàlla sa kaw sa kanam macha allah euh, di ñaanal tamit aussi ñi nekk ci prison yi maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax fi mu nekk yàlla suñu borom génne leen fi maa ngi ñaanal ñi nekk ci hôpital yi yàlla may leen tan may leen wér ci barki Seydina Mohamed maa ngi ñaanal tamit Sénégal yàlla fi yàlla dafa jàmm. yàlla na fi yàlla defu jàmm te jàmm rek a fi am ndax dëkk bu Seydi Hadji Malick nekk Serigne Touba nekk fi maam Limaamu Laay nekk fii Bou Kounta Ndiassane nekk fi maam Baye Niass nekk fi jàmm rekk a fi mën a am yàlla na fi yàlla defu jàmm si barke Seydina Mohamed ñu tàppe xol yi bëggante yéeneente lu baax jàppalante maa ngi ñaan a daal waaw dëgg neexul waaw sama xol dafa fees <laughs> nee naa xolam dafa fees kon alaamu amin nee na Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm alaamu amin kon noonu rek la def fans yi Ba Seck ñu ngi lay remercier bu baax a baax macha allah ci ci invitation bi ni lay demee saa su ne émission showbiz bi nii lay demee saa su ne amul leneen ñëw waxtaan li nga xamante ni moo xew ci showbiz bi Eh, bu ko defee nag sama man bu ñaaw bi maa ngi bu baax a baax ak sama DG kenn du moom ñu ngi koy bu baax a baax groupe baax yaay kenn du ñoom macha allah sama doomu baay yooyu waaye kenn du sama yaay ja maa ngi di nuyu bu baax a baax rek soppeek fans yi am di jàmm yi du leen fàtte benn yoon di leen wax nag émission show bi si ni lay demee saa su beneen yoon ñu dalal beneen dara ci biir naanaan bi.